Euh, monsieur le premier adjoint maire ou commune Dieuppeul-Derklé, Madame, Monsieur, membre conseil municipal ou commune Dieuppeul-Derklé, personnel de santé bu poste bu commune Dieuppeul-Derklé, bajenu gox yu commune Dieuppeul-Derklé, mbokk taskatu xibaar yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jëfal ci bis bu rëy bi tey jii li ñu am di ko def def naa ni lu jar a sargal lu jar a yéene la ba nit ñi xam ko parce que njëriñ rek la fii ñu taxaw tey am na ay at ci ginnaaw beneen melukaan la amul mais ñun bi ñu ñëw ji mairie bi dafa am lu ñu digg woon ak askan bi ñu ne leen bu ñu ñëwee ci mairie bi danañu xar suñu tànk tubéy ba am na yu mel nii kër docteur poste de santé bi ñu yëkkatiwaat relève waat plateau technique ci loolu la ñu nekk te loolu bu ñu ko waxee ñu war koo gëm ndax li ñu gënoon a métti bi ñuy def plan de développement communal bi dafa am ñu bari ñu ñuy kese ñu ne ñi ñun daal dañu am jafe-jafe ak njàqare ma ne leen lan mooy jafe-jafe ak njàqare bi ñu ne dañuy toll ci mat di dem visite prénatale ci poste de santé bi juróom-ñeenti weer ñuy xool suñu gi yaram xool suñu suñu ëmb mais bu ñu demee ba war a mucc dañuy yóbbu feneen foo xam ne yeneen loxo yeneen i nit yeneen i béréb lañ koy defee te loolu mën na indi jàqare ndax matu dafa nekk xare soxna si si toll dangay bëgg ña lay toppatoo nga xam leen nga miinal leen démb ak bërki démb yàlla def ci wërsëg def ci jàmm nga mucc ci jàmm ndax gis nañu suñu réew mi ba léegi am na ñoo xam bu ñuy mucc dañ fay bàyyi bakkan wala xale ba du indaale bakkan te loolu defe naa ni war na dañ ci réew mi warta nekk jafe-jafe warta nekk xare nit ñi war nañoo ëmb dem di dikk nañu waree demee di dikk nekk ci loof laay nekk ci jàmm di def seen liggéey ba seen bisu mucc jot ñu mucc jàmm ak salaam yàlla dafa leen xewal looloo tax bi ñu ñëwee ñu ne war nañu def ay jéego yu mag a mag loolu nag mu tombeek CETUD di def liggéey bu mucc ayib jàppale ñu ci démb waxoon nañ leen fii waa CETUD ñoo nu jàppale ci école yi jox xale yi donga daara yi ay jumtukaay ay fourniture jox ko maîtres yi aussi jox ñu aussi matériel boo nga xam ne moom la ñu utiliser ci école yi ak ci mairie mooy ay ordinateur ak ay table yàlla mi am pay yàlla yàlla fay seen directeur général moo amoon yéene ak pas-pas teew fi waaye bu fi teewul mel na ni teew na fi parce que njabootam yëpp teew nañ fi tey te yëkkati nañ fi kàddu bu am solo ginnaaw ñoom ki nga xam ne mooy indi matériel bi wax na leen li leen matériel bi tudde tëddee ak matériel bii mooy matériel bu mucc ayib moom la ñu utiliser ci hôpital yi ak fépp foo xam ni nit ñi dañ fay mucc moo tax bi ñu ñëwee ñu ne nañu defaraat poste de santé bi bu mu nuroo commune u jëppal dërkal ndax commune jëppal dërkal dafa taaru te ñu taaru ñu bëgg lu baax rek a fi tëj euh, looloo tax looloo tax ñu defaraat looloo tax ñu defaraat poste de santé bi gis ngeen nii liggéey bi sax pareegul ñu ngi toll ci peinture ak defaraat mais yemuñu ci loolu dañu defar maternité bi defar logement sage-femme ndax heure mucc yàlla rek moo ko xam mën na nekk bëccëg mën na nekk guddi mën na nekk xaaju guddi mën na nekk nawet mën na nekk noor saa su nekk nit mucc na ci looloo tax ñu ni war nañu def suñu kéemtulaay kattan ba képp kuy mucciti dootoo wàlliyaan te li may ci indi ngir sabab rek mooy te maa ngi koy wax ci teewaayu bàjjanu gox yi nga xam ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom duñu ni bu ñu doon góor ndax li ñuy def ñëpp gis nañ ko fu eh, mbir am moo xam danga nga tawat moo xam dangay nga itteewoo gis docteur dañu fay dem teewlu moo xam da nga itteewoo ndimbal wala jàppale dañu fay dem teewlu te lépp ñoo koy def ci seen kàttan ci seen alal ci seen amam yàlla mi am fay yal na yàlla fay bis damay xëy di liggéey fekk fii benn soxna soo xam ne dafa ñëw dafa nit mën ñëw mucce fii muy waaj a mucc ci biir poste bi ci buntu ba la taxaw di mucc bu dul woon teewaay ak xarañu bàjjenu gox bi ci mbedd mi lay amee doom waaye ñoom ñoo ko taaw yenn ko def ca la ca war yóbbu ko ci clinique bi bañ ñu ko xamalee aussi ñu dem seeti ko ñu ni nag la ñu waroon def war nañ ko baral ba mu gën a gaaw ndax nit ñi di mucc fii. loolu moo sabab ñu tabax maternité bi tabax logement sage-femme et ma da leen di jox digg daje bëgg nañu fileeg at mi di jeex ak at mii ñu dëgmal ni ko song bëgg nañu ubbi maternité bi. képp kuy muccati nga mën a mucc fii. ndax xam-xam baa ngi fi xarañ baa ngi fi yéene baa ngi fi. ak pas-pas bi personne de santé bi duma ma bàyyi di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ay jàmbaar lañu jàmbaar fakkatat lañu muy guddi muy bëccëg saa yoo fi ñëwee sa aajo fayu te dañ koy faje ci yërmande ak taxawaay ak gunge tey sax xam naa bu doon biru bisu visite cérémonie bi pour amal ko fi dana métti ndax mbooloo mu bari ñoo fi daje ñëw di def visite. foo dem dañ naan la seen poste de santé bi de. hôpital yóbboowu ko dara. tey nag la wax jooju gën a dëggu. ndax li hôpital di am tey am nañu ko. li ci des rek mooy ñaan ci yàlla subhanahu wa taala matériel bu mucc ay bii. di table d'accouchement. di couveuse. di échographie nga xam ne ay lu jafe-jafe am la. tey jii am na fii. la jafe woon suñu borom indil nañu ko ba ñu am ko tey. kon yàlla nañ ko jëriñoo et fournisseur bi wax na li ci doon li ñuy duggaat ci as mu bees bi ñu ubbu maternité bi képp kuy mucc mën a mucc fii ci jàmm ak salaam ah, loolu moom la ñuy ñaan suñu borom di ci ñaan askan wi ñu jàppale ñu ci pour yéene boobu suñu borom matal ko donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm te wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ci seen teewaay li ñu fi dajalee tey nag euh, liggéey la boo xam ne BRT depuis projet bi bi mu commencé mi ngi ko lënkaloo ak waa ak waa commune de Dieuppeul Derklé mu doon li ñuy wax accompagnement euh, dans le euh, accompagnement sociale boo xam ne BRT bi mi ngi koy def dans le cadre de de de ses activités accompagnement boobu nag dafa créer benn CIS ñu dee comité d'information et de suivi moo xam ne tey man maay euh, man maay coordonnateur bi euh, depuis 2016 donc euh, BRT ci cadre CIS bi mi ngi liggéey ak ak commune bi donc ci noonu jamono yi ñu génn jox nañu école yu bëri ay fourniture ay fourniture ay saag ak ay matériels yu bëri jàppale tamit les les directrices d'école Euh, matériel de bureau ak ay ordinateur pour gën a yombal seen liggéey n'est-ce pas tey ñu ngi ñëw ci centre bi centre médical pour la pour indi matériel boo xam ne matériel bu am solo la xam naa ma dem Kébé ci kanam dina si dellu si waat mais matériel bi dina permettre ak si suñu yaakaar tey ne ne ëllëg euh, euh, centre de centre médical bi dina dina dox beneen jéego maanaam ci naka lay gënee jël femme euh, jigéen ñi nga xam ne dañu ëmb naka lañ leen di gën a jàppale n'est-ce pas donc yaakaar nañ ne am solo la luy ñëw ci commune bi donc ñu ngi gërëm ñëpp ci seen taawaay di di vraiment di di rafetlu yëpp di jox euh, kàddu bi xam naa waa centre bi comme ça ñu ñu wax ci tuuti merci beaucoup jërëjëf euh, sama sama tur maay Oumar Nahari man maay coordonnateur comité d'information et de suivi du ci ci Dieuppeul-Derklé voilà donc bi ma leen nuyoo euh, gannaaw bi ma leen nuyoo maa ngi leen di transmettre nuyoo sama directeur général ak sama coordonnateur projet bi bu ñu sañoon tey fii dañ fiy nekk mais tey ku suivre RFM sax dina xam ne ne mu ngi doon intervenir si rajo yi par rapport ak euh, embouteillage yi am ak désagrément yi am ak grands travaux yi am présentement donc loolu moo tax tey teewu fii donc ma ñëw représenté ko di wax ne ne fii aussi du ma fi gan donc euh, monsieur le maire daf ñu yaatal comité d'information bi yaatal ni tamit suñu suñu kër lañ ñëw mun nañ wax ne suñu kër lañ ñëw donc njëkkoon nañ ñëw pour indi euh, matériel pour jàppale collectivité territoriale bi parce que dañu wax léegi pour les projets structurants mooy projets yi nga xamante ne projets yu mag la muy te muy TER muy yeneen projet yëpp euh, président daf ñu sant ñu mën a gestu bu baax population yi ñuy romb donc du ñu yem rek ci personnes affectées par le projet mooy ñi nga xam impacté yi la dañuy jóg mais dañuy aussi intervenir pour mën a gën a jàppale mën a aussi gën a dékku doléance population yi donc doléance population yi nag ku ci ñëw si éducation mooy kit scolaire yi ñu joxe woon ñëw si ci produit d'entretien ak mbas mi ñu nekkoon ñëw ci di ñaan yàlla mu jëlee ko fii si jàmm ak salaam di ñëw aussi euh, ci euh, matériel informatique ak yooyu noonu yépp nga xam ne ne c'est juste pour jàppale population tey nag dañu ñëw pour euh, jël beneen vole boo xamante ne daf ñu ñor muy volet santé mère enfant donc loolu moo tax ñu indi matériel médical matériel médical bu bees tàq boo xamante ne si su garantie euh, ba euh, am na assurance et puis prestataire bi nga xamante ne ñu ngi koy sant dina former personnel bi tam si utilisation bi matériel bi nag table d'accouchement la bu bu bu boo xamante ne mot na complet euh, ak euh, échographie ak couveuse parce que tey jii écographie dina permettre yaay ji balaa muy mucc donc visite yi mu war a def yëpp mu def ko si jàmm donc dina dina soulager personnel soignant bi parce que mun nga engagé ak yooyu yëpp mais boo amul matériel bu war tamit day métti donc doo mottale sa liggéey donc dinañ mën a def seen échographie dinañ mën a tamit accoucher si jàmm mooy mucc am doom si jàmm Euh, ba pare euh, bu fekkee ne ne dañu am euh, prématuré ñu mun ko mu jël en charge durant ces ces ces premières heures de vie donc loolu noonu pour wax ne ne rek dañu bëggoon toucher vraiment foo xamante ne dina mën a amal njëriñ askan bi parce que tey jii nii ñëpp dañu wax ne ne bëggatuñu gis nit koo xamante ne day day day day day day am doom ba pare ñàkk ci bakkanam donc kon loolu mooy crédo santé nekk personnel bi engagé wu pour loolu bañ a am donc ñun dañoo indi suñu yéene rek asaka yéene pour mën a jàppale si liggéey boobu noonu. donc maa ngi santaat si le maire si jàppale bi parce que tey jii nii bu fi comité d' information bi et de suivi nekkul woon jàppale wuñu peut-être que suñu diggante population dina métti ndax. travaux yi bëri na ñu ngi ciy jéggulu gas bi bëri na mais gas boobu tamit assainissement bi moo ñu sonal parce que assainissement bi bu ñu ko defarul ñun ñu defar suñu BRT ba mu jekk di si jaar bu tawee nit ñi am problème tamit da ngay indi ay gàllankoor moo tax ñu ne nañ defar lépp loolu moo ñu xaw a sonal ñu ci jéggulu nag si gas yu bëri yooyu noonu di jéggulu aussi si circulation bi ni mu xaw a xatee te di wax ne nañ ci indi ay saafara donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam man maay euh, madame Khady Ndiaye kebe maay chef unité environnementale et sociale du projet BRT bu CETUD waaw merci. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di ziar ñëpp leen ñaanal jàmm di kontaan ci tey lii ñu fi dajale ndax lii moom lu ñu doon néeg la bu yàgg yàgg ndax euh, ñun bàjjenu gox en tant que bàjjenu gox madame Ndeye Coumba Wade présidente de bàjjenu gox Dieuppeul le lii dañ ci kontaan ñun ñëpp. ak population bi ndax indi ñu matériel accouchement euh, indil ñu couveuse indil ñu échographie lépp lu ñu doon soxla di ko wuti feneen ñu am ko fii euh, sant yàlla di gërëm waa BT di leen gërëm di leen sant di gërëm monsieur le maire mi nga xam ni moo ñu tabaxal suñu maternité bi yal na àgg ak jàmm ba ñu inauguré ko ndax daanaka pare na da tabax logement sage femme nga xam ni ku matu guddi doo jaaxle fooy dem population bi dañ daan dem fu sore comme lépp mu ngi suñu wet nag macha allah kontaan nañ ci sant yàlla bu baax a baax di leen ñaanal yokkute ndax fii macha allah defaraat nañ ko ba mu baax ñun santé de la mère et de l' moo ñu saf loolu lañ ñu fi tege kon nag lii bu amee duñ def lu dul kontaan ci amuñu dal lu ñuy sant di gërëm ICP bi. di gërëm sage-femme bi di gënëm personel de santé bi fi ne ndax yàgg nañoo ak ñoom ñun depuis 2009 ba léegi ñu ñoom fii nekk ñoom du dugg di génn man chaque matin maa ngi ci centre bi lu fi xew xam naa ko. amul dara ñoom ñëpp macha allah personnel bu engagé di gënëm waa BT di ndax li ngeen njëkk def yóbbu ci école yi loolu lañ gën a kontaan li ñu jëwati fi table accouchement couveuse. loolu macha allah yal nañu yàlla jàppale ñu entretenir ko bu baax a baax a baax di gërëm monsieur le maire bu baax a baax ndax suñ fu fi nekkul woon lii du du yëpp du mën a àgg daal mais sant yàlla bu baax a baax jërë ngeen jëf. présenté wu naa madame Ndeye Wade présidente Badiane gox Dieuppeul Derklé. yàlla parce que euh, vraiment ñu ngi remercier monsieur le maire ci maternité bi mu ñu tabaxal parce que jëppal euh, euh, Derklé soxla woon nañ ko te vraiment euh, def na ko sant yàlla kon aussi tamit matériel bii nga xamante ne waa dañ ñu ko fi indil aussi ñun avantage la si ñun ñun ñii nga xamante ne ñooy sage-femme yi parce que daf ñuy permettre suñu suñu liggéey gën a gën a gaaw prise en charge bi gën a gaaw daal parce que au lieu ñuy dem di dem de gauche à droite pour pour jël euh, pour euh, transférer suñuy patientes yi nga xamante ne dañu soxla prise en charge day permettre ñu def ko sur la sur sur place sans pour autant ñu dem de gauche à droite nous disons vraiment ñu ngi sant yàlla nag di remercier suñuy personnel yi nekk ci jëpp euh, ci Derklé ci poste bi remercier tamit maire bi remercier bàjjenu gox bi remercier relais bi vraiment merci daal awma dara lu may wax kontaan trop trop trop merci beaucoup nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant ñu ngi nuyu waa poste de santé bi ñu ngi nuyu monsieur le maire ñu ngi nuyu waa BRT ñu ngi nuyu képp ku fi teew bon ñu ñooy fournisseur bi je suis monsieur Momath Ndiaye responsable du stock et de la logistique de la STE projet bii nii projet bu extraordinaire la parce que matériel bi déjà couveuse échographe ak table accouchement ku ko wax wax nga lu bëri si hôpital te matériel bi macha allah matériel de qualité la matériel de qualité la moom la ñuy livrer partout dans les hôpitaux moom la ñuy livrer principal Dantec Fann hôpitaux yëpp chaque fois c'est le même matériel de qualité dañu fay def ay huit ans ans te matériel yi di def ay euh, diagnostic pour inter avant muy am ay panne tombé en panne fekk ñun anticiper nañ de ce fait panne yi du ñu wax en panne mais dinañ dinañ de telle sorte que bon mun na néew quoi en même temps tamit dinañ assurer formation personnel bi su ko defee ñoom dinañ gën a xam nan la ñuy tenir en compte matériel bi nan lañ koy sàmmee nan lañ koy désinfecter de telle sorte que dina matériel bi dina yàgg te ñëpp dinañ si mën a gis njëriñ bon loolu laa buggoon wax su ko defee au moins yéen ñëpp ku nekk def ko yëfu boppam su ko defee incha allah matériel bi dina yàgg. ba pare incha allah ku nekk dina si gis boppam kenn dootul évacuer évacuer kenn si beneen poste de santé ku nekk fi nga dëkk nga fajoo fa Sénégal jëm kanam.